صاحب القتل والكتم ورضي الله عن خليفتهما بالإطلاق قلقية وقلقية وحقية مولانا ومولاكم ومولى كل من له نفس طوعا أو كرها مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس أقول كما قال محمد المشري أو نقول كما قال محمد المشري وإن كان حب للخليل يضرني فيا ربي أجل لي من الضر ما تشاء mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon yéen groupe Baye Point di nuyu kenn ku ci ne turam ak jëmmam ak kem tolluwaayam ci yàlla seen mbokk Cheikh Tidiane Niang euh, di leen ndokkeel yi tamit ci liggéey bi nga xam ne jot nañ koo def ci ay fan yu néew ay boromi xam-xam sekk ko ak ay muqaddam ak ay taalibe yi nga xam ne jaay nañ seen dund jox ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñu toll ci jamono joo xam ne ñu bari ñu ngi askanoo ci fayda Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di oote woo turi di jëfandikoo ay waxi baay di référé woo téere baay yi dégg wax ji jël ànd ak loolu yëpp ñu jël mbiri baay fokkat fokkati ko ci seen doxalin ak seen waxin jël askanele ko keneen am nag ñoo xam ne fi jooju la jamono dogg nañ ne loolu duñ ko nangu ndax ñun ay junuudu Cheikh Ibrahim ñun ay soldaar yi bàyyi lañ bàyyi lañ bëgg mëdët baa ngi ci moom xam-xam baa ngi ci moom may bi yaa ngi ci moom jagle yaa ngi ci moom ci dootul jugatee ci loxoom ba bisa péncab yàlla te Baay wax na ne yaa ngi ne madadu jasad yi laa yafhamuha illa jasadu madad yi madadu jasad yi Baay moo ko wax Baay nee na sama tëb bi jëmm la amuha, ken du ko deg ken du ko comprendre ken du ci am fahmu illa jasadu madadi lu moy sama jemi teub kon maulana cheikh ibrahim teubam pour nga mën ko deg rek il faut nga dem ba jeex ci mom tak ci bo demé ba jeex ci bay yow do do do gis aynu do gis asar dogis gis sa jëmm do gis jeexintal boo xam ne ci yow la nekk lépp loo xam ne rek askanele nañ la ko yow da ngay dal di effacé wu jox ko alaaji ibrahim ñes ndax ku dem ba wax ne dégg nga wax ji ay na barhaamu wa ma barhaamu xatta fanaw fi hubbihi wa haamu fa wallahi lawla annani fanitu fi cheikh ahmad haya an mit xoolal euh, ba mu wàccee xina nadaltu sama qaddahaani wallahi ma lam yakun fi xusbaani wax qad tayaqantu bi anna allaha yajra al ma yaraaha sirtu aqulu ayna za seequ alladi ta'muluhu riqaabu kulli jeebisin ayna barhaamu wa ma barhaamu hatta fanafihu bi wahaamu fa wallahi lawla annani wala lawla annani fanitu shay ahmad xaya mi nga xam ne dafa ñëw ne bi ma wàccee ca foofa mooy Nigéria sama qaddahani fofa qaddahani deug deug jomal nama wallahi ma la nga xamne lam yakun nekut won usbani sama jordi bama wacce fofa a ah, man dal man jommina man cheikh ibrahim li nga nekut won sama jordi amna yaqin ne yalla moy dawal mbiri moy doxal mbiri num ko sobe ma mujj wax ne ana sëriñ bi nga xam ne mboolem kuy yi borom xam-xam yi rek ñoom yaa ngi dégg sukkal nañ ko yaa ngi dégg dammal nañ ko loos ana baraham ak kuy baraham ba nit ñi di jeexee ci moom nii waaye bu woon jeex bi ma jeex Cheikh Tidiane kersa dama dana ma rey kon Baye radiyallahu anhu bu ñuy askanele ay jagle ak ay daraja ak ay may lépp buñ ko koy jox da ngay gis mu daldi di bopam daldi di samp dégg nga wax ji serignam cheikh Tidiane ci ñun xam nañ ne bay ak cheikh Tidiane ak yonent du wuñu ñaar kep ko xam ne xam nga tijliyaatul xàq ya da nga xam ne ak cheikh Tidiane ak bay ay way lañ yo xam rek ki mo feñon demb fele andi sharia mu feñat fi andi tariqa mu feñat fi andi fayda moo tax lay la bàyyi ne law sawaru ni fil xaqiqati lam yaraw si waa sax sin mahbub bii ne tama taw léeg-léeg mu ne boo leen ma photoon dëgg-dëgg foto doo leen gis du mooy jëmm juñ bëgg gi ki jëmm jooju la ñuy bànneexoo tu mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis tamit moo xaar la ne ma xaqa zaatu cheikh zaati wa awsaafu law awsaafi fa kulli adimu ana zalika alhabibu loolu leer na yaa ngi dégg ma xaqa raaf na zaatu cheikh jëmmi sëriñ bi di cheikh Tidiane zaati sama jëmm wa awsaafun lahu awsaafi melom yi doon sama melo fa kulli addimu sama lépp ñàkk wa ana man bàyyi na zalikal habibu am ñu wax ne zalikal mahbubu soppe boobu man la man Cheikh Ibrahima Niass radiallahu kon dafay baax ñu bàyyi xel loolu Cheikh Ibrahima Niass mooy Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahima mooy jëmmi yonente yàlla Muhammad ndax wax na ne waqad tamawati inda mahdi wa qad anat jamiu rijalu xaybi taxta qadaa'i fa ma qatawu fi sharqi wal garbi fatfadan ila makkatin illa li chammi sadai walimla wa ayni al yawmu aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa rawaai kon kooku dafa leer te am na beneen xasida goo xam ne sax dégg nga wax ci nusxa yi la ne yaraani bi ayni ras yaxsabu annani muhammadu abdul xaqi man jahila al amra boo ma xoolee sa bëti bopp da nga yaakaar ne maay muhammad mi nga xam ne mooy jaamu dëgg gi nee na réeree nga mbir mi wa ma ana duma moom waaye in fasartu su ma firee kun xa xaqiqati sama nekk ci xaqiqa dégg bi xaqin ci dëgg laa abdu yu xiitu bi xubura amul benn jàmbu ci peeg benn xabar wa ma ana illa ma ana fa jabu ana man nekk lu mooy man bàyyi yéemu leen ci man dégg nga wax ji ma xawtu sifaati wa suma wa siwa jahara kooku mooy alaaji ibrahima ñes moo tax ñu ñi nga xam ne ñoo dogu pour liggéeyal maulana cheikh ibrahima ñes doon yaa ngi dégg junut yoo xam ne dañuy def difaa anil faydati tibqan ma al xaqi wa xubbi Cheikh Ibrahim Niass wa xidmatihi donc ñun dëgg dëgg nañ ci sax dégg nga wax gi sax biñ ci sax dëggal biñ ko dëggal benn bakkan amu ci cër moo waral yàlla may ñu réussite pay bi yëpp jot ko pay bi yëpp di ko waxtaanee mu doon actualité ci pay bi ku tànt fu mu toll na ci loolu ngay wax kuy gàmm ci loolu ngay wax kuy def lay du kat mais ci kutok ngay wax ku tok sa keur loolu ngay wax ku tok xaritam loolu ngay wax ku tok ak say soppe loolu ngay wax loolu luko waral waral ma fi fityaana sidqin qad akhlasu ila allah hasdan lan namuta wala nahya moy ndaw yo ya bay. daan wax rek ci joo jamonoom waaye ndaw yooyu sen maqama de nga wax ji man na gani sen ndaw yi nga xamne de nga wax ji ñom ño taxaw ko defendre bay kon défendre biñ koy défendre te teguñ ko ci bakkan loolu sante yàlla la kon lépp luñ mën a def pour dëggal baay pour samp baay pour keneen kuy saxalaat leneen lu mu leen jaral junni yoon ci ay wax ak ay jëf ak ay doxalin ñun lañu jaral mille fois ndax la ma waxoon sànq Misri dafa waxoon baat boo xam ne képp ko koo xam ne lab nga ci daairatul mahabba Misri yow la ko waxal mooy wa in kaana xubbun lil qalili yadurruni fa ya rabbi ajilli min ad-durri ma tasha wa in kaana للخليل يضرنا فيا ربي اجل لنا من الضر ما تشاء واخ جوجو من نكو اب ني نيب ني دوغال سي سون بوك بودي ياغي دغ بغا خليل داف نيو لور ياو يالا نيو لاي نيان لور جي نغا جايكو وارنا نيو مانا اغ سي دايو غوغ بنين بي موي ومن فاته شيخ الخليل تداركو في الزمان محال كيب كوكو خامني دوف دوف لوغا با شيخ الخليل راولا دبات كو لو جوم لا سي جامونو ndax kooku nekkam dafa jiitu jamono waaw wax na ne ahbabtuhu hatta araaniya kuntuhu wa rabbi lam yaxluq wala waxta bëgg naa yonent ba gis naa ne doo naa yonent fekk sama borom amagulul yaa ngi dégg waxtu amalagul yaa ngi dégg bindagul waxtu bindagul makan kon kooku nga xam ne amam jiitu la kon kooku zamaan du ko tënk xalafa zamaanu la yatiyanna bi mislihi kadaba zamaanu cheikhun ida rabba yakunu ka ahmadi wa ida takallama kaana misla asma'i jamono bu giñee dana andi ku mel ne bàyyi ñu ne ko jamono fen nga lu tax parce que sëriñ la boo xam ne bu yaree rek nga gis yaram yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ la boo xam ne bu waxee te gënoon fasaxa ci arab wala bokk woon ci fasaxa arab bi mooy asma yi dégg nga wax ji da ngay da ngay ne moom mooy wax ndax yaa ngi de dee doom moo gën a neex leb ci xol yu muy waar moom mooy alaaji Ibrahima Niass dégg nga wax ji moo tax boom bu la waxee ne euh, waxal ay absarat aynaaka misliya saaira suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu loolu rek tënk na lépp bayti bii rek buñ ko déggoon taalibe baay yëpp buñ déggoon bayti bii taxaw ci dégg nga wax ji war nañoo mën a xam ne ku mel ne baay amut baay bu demee bay laaj ndax wëhal ndax te hël dafa am ay maan fi arabiyati am na hël bi maana taqriri wala bi maana istiqraar waaye am na hël boo xam ne bi maana nafi la bii nag dafay dubu bi maana nafi yaa ngi dégg mooy wa hal absarat ay naaka yaa ngi dégg ndax sa ñaari bët mus naa gis ku mel ne man daf laa bëgg a wax ne sa ñaari bët musul gis ku mel na man bu dee ci loxatul arabiya la dana dugg ci loolu bu dee ci wax comme wax nii rek dana dugg ci teggin wa ab absarat ndax mës naa gis ay naaka sa ñaari bët koo mën a dox yaa moom wax ja ndax sa ñaari bët mës naa gis misliya man bàyyi ku mel ne man fexal dégg junju laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir lol ku ko dégg da nga deg wax du reuy fi moo tax mu ne misliya saaira ku mel man bay di dox suluki sama sobu, ni may wajasbi wa jazbi ak sama jazbu bi ni may jazbu wal ulum fuyud ak kamkambui kam buy bebbu bi kon bay jangal na la bopum ci daairati nubuwati ndax mom moy suluk yaangi deg fofu lañuy sobe nga wax di wax na la daairatom ci wilaaya foofu la ñuy jazboo ndax moo woon tawaytu wa saxaltu tariqa ila al xaqi waaye daairatom ci xilaafa baay wax na ko ndax fu fol ulumu suyuudu moo fi ne moo tax mu ne falaa aarifu illa bi baabi waqif udiru wasl qawmu quran bi faydati kenn du kam yàlla lu mooy da ngay taxaw ci sama bunt maay doxal maay nandal gaa yëpp ci sama fayda bi man Cheikh Ibrahim kon bële daaira islam la mooy suluk bi daairatu iman la mooy jasbu bi daairatu ihsan la yaa ngi dégg moom mooy moom mooy moom mooy alfaydatu moo waral moo waral cheikh tiyaane wal ubudatu hiya alqiyaamu bi amrillah fi maqaami al ihsan fa inna saahibaha lam yakun wujudun fi aynayhi ila al haq subhanahu wa taala huwa yara alhaqiyan bi ayni basirati wa nuru yaqin ubudatu ndax dafa am ibada am ubudi am ubudatu waaw bàyyi am na fu muy wax ne sax fa maa faxruhu illa loo buuratu lam yarum si waaha walaakal fa walaakal faxru faxru muqalladu yonentu bi ndamoowut lu mooy ubuudatu maqaama ubuudatu ci lay ndamoo mooy fa mu doonee jaam ca dëgg dégg nga wax ji sàkku lu dul loolu moom yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye boo déggee ibaada dégg nga ubuudiya dégg nga am maqaali da nga am dégg-dégg ci wax ja mooy lan mooy ne dégg nga wax ji Euh, Cheikh Tidiane nee na ubuda mooy lan mooy alqiyaamu mooy taxaw bi amrillah mbiri yàlla fi maqaamil ihsaan ci maqaamab ihsaan fa inna saaxibaha borom maqaama bi lam yakun du nekk wujudun lu am am am fii aynayhi ci kanamam ilal xaq subhaanahu wa taala lu mooy yàlla kese uhu kooku moom yaral xaqa mooy janoog yàlla mooy gis yàlla iyaadan jahran bi ayni basirati wa nuuril yaqiini kon Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu fii la àggale jaam gi kon bu waxee ne yaa ngi dégg moo tax mu ne suluk ak jës boog olum suyut ci moom rek nga koy gisee moo waral mu wax ne waman yaa ngi dégg araada an yakuna ma'i fi xaali فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواحي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى وصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فمن ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المطهرة يعني دق آه، الصريفة باقتحام المحرمات وترك المأمورات فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه يعني دق لولو باهي كو kon nag daf lay yombala rek nga mën a dégg sunu képp ku bëgg a nekk ak man ci sama xaal man bàyyi na nga soobu sama yoon wi ci wax ak jëf jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ci li feeñ ak ci li nëbbu yaa ngi dégg ngay marlu di am cofeel pour àgg ci ngërmande bi yàlla képp koo xam ne mu ngi askanoo ci ñun muy jëf loo xam ne dafa wuuteeg sariya bu laab bi sariya bu tedd bi yaa ngi dégg di xëtt lu xaraam yi di bàyyi digle yi ñu ngi seedaloo yàlla ne dañ nañ ci kon nag gars yi nañ dellu ci Cheikh Ibrahim nañ dellu ci njàngale bàyyi ñu xam ne bàyyi wax na ne tabli maqaama lay fawqahu fawq tàgg na Cheikh Tidiane moom ne may maqaama goo xam ne benn maqaama féetewu ko kaw loolu moo lay wan ne may googu dafay firi am na ko rek ndax ndax lan lu tax in qultu kun yakun bila taswifin su ma ne nekkal dafay nekk te lu amul sawfa amul xaar yaa ngi dégg xat xassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifin yaa ngi dégg kooku lisaanu xadara la amee lu mu wax rek dafay nekk bu la waxee lu moo lay firndeel ne maqaamam amul kenn ku ko jege moom moo ko jagoo képp koo xam ne mos nga as tuut sax moom moo lay tëbb ci as maqaamam kon yàlla yàlla fayal alaaji Ibrahima Niass ñu ngi leen di ndokkeel Baye Point dañoo kontaan rek tey